sëñ Daouda xam nga lan moo ci gën a yéeme mooy xam nga lan moo ci gën a yéeme mooy Sonko ci boppam xëy na euh, amul possibilité di toog di def nam ko daan defee waaye wóolute gi Sénégal yi am ci moom ak yaakaar ji ak doyloo gi ak ngëm-ngëm bi tax na. ba ñi nga xam ni ñoo topp ci ginnaaw manal ko lépp loo xam ne nii euh, su suñ ko waxee rek doonte wax ji fële lay suñ ko waxee rek nee nañ Sonko wax euh, te bëri na ñoo xam ni nii su fekkoon ni li dal Sonko dal na leen seen ginnaaw moom dootul baax dañ leen di dimbale waaye mënuñoo dimbale kenn waaye moom gis ko ko Sénégalais yëpp a ngi ci ginnaaw ba léegi. waay waay waay waay waay yal na ko yàlla lafal cat dolli koy xéwal dolli koy sutura dolli koy barke dolli ko wërsëg may ko wér may ko wér wérle defal ko jaamu yàlla ko nangu jotloo ko ci réew mi mu doxal ko ba yéene ju Sénégal yi am mu mottali ko ci barkeb alquran